asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp te ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di remercier ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi suivre chaîne bii di lu xew TV di leen yëgal aussi que dafa am benn plateforme bu bees bu ñuy woowee sunu business TV mu doon loo xamante ni ay doomu Sénégal ñoom ñoo ko créé te ñun ñi di wax ak yéen inscrire nañ ci képp ku bëgg am nag suñuy vidéo en exclusivité ñi ngi lay ñaan nga ñëw abonné wu ci chaîne boobu ñu créé ci plateforme boobu ku ci bëgg a abonné wu nag am na lien buñ leen defal ci description vidéo bi bu ngeen ci cliquer dina leen yóbbu ci chaîne boobu ngeen man di topp suñuy vidéo en temps réel parce que ñu ngi leen di waajal yeneen analyse ci yeneen séeri incha allah alors tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen di leen defal beneen vidéo vidéo bii nag mi ngi concerné sunu doomi réew yi nga xam ne dañoo dem daani seen doole Mauritanie ñu xamal ñu ni dañ fa nekk di fa dund ay conditions yoo xam ni doy na waar trop mu am kenn ci ñoom ku amoon ak ñun benn waxtaan wu am solo jëm ca la ñuy dund foofu mu indi woon ci ay leeral ak benn vidéo bu envoyé donc avant ñu leen di tegal vidéo bi ak waxtaan wi nga xam ni ne moom lañ jot a am ak moom ñi ngi leen di ñaan kenn ku ne boo seetaanee vidéo ba pare xalaat boo ci mën a am nga defal ñu ko ci commentaire yi wala nga envoyé ñu ko par message ci suñu whatsapp man nag xalaat bi ma ci am mooy dëgg la naam da ngeen dem wuti mais am na ñoo xam te ne ñi ngi ci biir réew mi di fi am seen teraanga. yàlla nag moom mooy joxe wërsëg te kenn ku ne sa wërsëg fa nga nekk dina la fa fekk ci kàttanu borom bi bien vrai que Sénégal metti na dëgër na et mais yaakaar naa toog fii nii am jàmm boo xëyee am cent francs sax bokk ak sa njaboot moo gën nga dem dëkk jàmbur ñu dafay teg yenn mettit man loolu mooy sama xalaat bu gàtt ci ñi nga xamante ni si ñi ngi dund lu metti ci biti donc pour bañ a guddal ñu ngi leen di bàyyi ngeen seetaan vidéo bi nga xam te ne moom la ñu envoyé ci li ñuy dund foofu ak waxtaan wi nga xam ne moom la jot am ak moom. waaw sama gars yi salaamaaleykum ziar naa leen waaye Ina Pass ba si jàmm waaw man Yatma Diagne Sarr maa ngi leen di ziar bi wér a wér billaahi wallaahi waaw. di leen wan rek ñu nekk noation gisoo dëkku naar yi nii war na yàlla fi mu toll nii coono gu rëy na ñuy dund ak ñoom billaay wallaay waaw si lu metti na ñuy dund si lu metti waaw may nu jàmm may nu salaam billaay wallaay xoola bouton yii nii bouton yii si nanuy saw gars yi dañuy taw saw fi nuy dënd non metti na quoi wóor na yàlla Macky Sall war na wax si lii daay wallaay lii nii gisu ko de ñun lu ñuy dund ñun rek noo ko xam. billaay wallaay. waaw sonn nañ trop quoi lii nii film bi ñu def nii sax dañuy làqu nii di ko def sinon bu ñu gisee dañuy nangu portable yi billaay wallaay métti na quoi metti na vraiment. mais dara yàlla baax na quoi yàlla baax na mais lii nii ñaaw na lii ñaaw na billaay wallaay néeg yi nañuy fanaan néeg si am yi bi maa ngi lay siyaar di la lu bëri man Ameth Dia. maa ngi lay gu wér a wér a wér te de ziar gu wér wér waaw te la ñaanal jàmm te ko sàkku ci yow waaw te la wax nag vidéo bi su ma sañoon nga jàllale ko ndax ñun ñu nekk Nouakchott sonn nañ trop lii la ñuy dund Nouakchott Mauritanie billaahi ramas guddi ramas bëccëg waaw ramas guddi ramas bëccëg waaw teguñ ñu ñu nit wallaahi gis nga vidéo boobu dañ lay jàpp te doo def dara ab ramas cinq heures dix heures amul heure heure bu leen neex dinañuy dund waaso billaay xam nga ne lii Macky Sall war na ci jot waaw billaay wallaay waaw man maa lijjanti bii nag ngir jot la renvoyé lii ngir nga jàlle ko billaay wallaay lii lañuy dund Mauritanie billaay noasoog lii lañ fi dund fi may wax ak yow nii gaa yi di circulé nii kuñ gis dañ lay jàpp yaa a xam salaamaaleykum Cheikh bi ñu ngi lay ziar bu baax si loo nekk yaa ngi ci jàmm d'accord gis nañ vidéo bi dégg nañ tamit li nga wax mais tamit euh, bëggoon nañoo xam ba xam yéen da ngeen di nekk di jaay ci place boo xam ne dañ koy tere wala daam lu ñuy tere ngeen koy def wala nu mu demee noonu parce que tamit euh, defu leen dara ñu jékki-jékki di leen ramation chaque jour amul heure ba woon nañ daal nga gën ñoo leeralal côté boobu dafa am lu ñuy tere ngeen koy def wala ngeen di jaay ci bërëb yoo xam ne dañ koy tere wala nu mu demee noonu daal. waaw fii ramance bi moom yàgg na fi ramance bi yàgg na fi waaw moom yàgg na fi waaw ñun moom terewuñu fenn wax dëgg yàlla te demuñu fenn tamit da nga yor say sax ba mu mat ñu fekk ñu ramance la bëgg nga jox leen xaalis ñu bàyyi la waaw loolu lépp da ci am waaw. waaye loolu daal yaa ma gën a xam mais amuñu dara lu ñuy tere wala fu ñu naan ñi bu leen fa jaar ñu fay jaar ñun xëy liggéey lañ xam wàcc wala boobu ñu ci ëpp doole xëy liggéey lañ xam wàcc tëdd seen nekk booy génn di jënd rek dañ lay fekk sax fi nga toog di reer waaw wallaay naa si wala fi nga toog di ndékki wala fi nga toog di añ ñu tabal la waaw billaay wallaay bërki dem sama biir place lañ ma fekk billaay wallaay waaw maa ngi nii dañoo jot samay pees ma daw bàyyi leen ak moom waaw suñ benn waaye bu nekk fii moom moo dem récupérer waat pees bi ñu fay leen dix mille dix mille ubuyo lañ leen fay billaay wallaay metti na trop d'accord dégg nañ bu baax li nga wax léegi ramasse boobu noonu ci yéen sénégalais yi rek lañ ko jëmale wala ci yeneen xeet yi nga xam ne bokkuñu seen dëkk rek ko jëmale wala ci yéen sénégalais uniquement lañ ko jëmale en plus tamit nee nga sa biir wax bi ñu jëlee say pièces Euh, benn waay bu nekk foofu moom moo dem mu jëli ko waajooju noonu sénégalais la wala ak tamit moom ban pouvoir la am foofu noonu ba war a mën a dem jëli pièce wala benn sénégalais rek bu dem fay pour ñu jox ko pièce tamit nga leeral ñu ci côté boobu ba xam tey ramasse bi ñuy def yenn sénégalais yi rek lañ ko jëmale wala bépp xeet boo xam te ni bokkul ci ñoom waa Mauritanie ci lañ ko jëmale wala daal nu mu demee rek nga gën ñu leeral tamit côté boobu noonu. waaw moom moom li ci ëpp doole moom ci ñun sénégalais yi lañ ko jëmale moom waaw li doole moom ci ñun sénégalais yi lañ ko jëmale waaw kooku jële woon sama lii bi waaw ci fii la nekk ah. waaye sénégalais la mais dafa daa teek uh, police bi nekkoon foofu moom moo dem moom la dem waaw moom moo ko fay jël pees indi waaw ñun sénégalais yi daal ñun ñoo ci ëpp doole moom waaw ñeneen ñi moom kaa dañ leen ramas sax lu bëri waaw ñun sénégalais daal lañ gën sonal trop waaw sonal nañ ñu trop moo wax dëgg yàlla noonu la fa demee waaw waaye du dara moo tax ñuy ramal dara nag mooy bëgg dara moo tax ñuy ramas da dañuy fekk nga say pees yëpp bëgg nga jox leen dara heure añ heure reer heure bi ngay xëy heure bi ngay wàcc lépp buñ la gisee jàpp la waaw moom moom buñ ne buñ la arrêté sax liñ lay njëkk laaj sénégalais nga wala mauritanien wala lan boo ne sénégalais ñu ne la ana say pees moom loolu lañ lay njëkk laaj moom d' accord d' accord hmm, dégg naa bu baax li nga wax léegi yow est ce que mën nañu xam maanaam lu waral tey ñu jël haine boobu jëmale ko ci sénégalais yi parce que bu fekkoon dañ ko boole ak yenn xeet yi nga xam te ni ñëpp nekkuñu ay Mauritaniens la bon dinañ am benn compréhension tuuti mais lan moo waral ñu taamu ci sénégalais yi rek ndax nee nga ci ñoom la ëppee lu waral ñu taamu ci sénégalais yi. waaw sëñ bi waaw wax nga dëgg dégg naa la. mais moom sénégalais yi yàgg nañ leen ko def waaw lii yàgg leen ko def trop waaw waaw ñoom moom Séné ñoom ak ñoom moom daf ñu dara sénégalais yi bu la jàppee dañ lay laaj sax ba am sénégalais nga wala wallaahi boo nee sénégalais ñu ne nii ba ci rëfale bi ñuy rëfale bu ñu demee ba Rosso dañuy sepp maliens yi guinéens ak sénégalais yi teg leen ku nekk si côté buñ paree maliens yi guinéens yëpp dañuy duggaat. dañuy duggaat gratuitement mais ñun sénégalais force ñu reful nañu bañ egg Rosso Sénégal ñu retourné waat daggaat devis doogu duggaat waaw yaa ma gën a xam liñ fiy dund métti na trop trop trop trop trop ba jéggi dayoo waaw liñ fiy dund métti na lool dangay ngay teg sa palaatu reer sax di reer weer say pees doo ko eggale waaw wala nga jënd ko pare perte ko billaahi nga liggéey ba wàcc jaay tey benn trois mille cinq cent wala nga jaay dara tey sa xaalis bi nga yor billaay walaay ñu dikk kar la wàccee la a taxi bi nga dugg te li ci gën a kon dañ lay fekk ci taxi bi nga dugg ñu wàccee la ci biir taxi bi laaj la say pees nga joxe say pees waaw nga joxe say pees boo joxe say pees bu ja bu leen neexee ngi téel a nga fanaan fa buñ xëy suba wut liñ lekk ci buñ ko amul buñ boo xëy suba ñu bàyyi la nga dem waaw ñu moom moom bëri na fi ñoo xam ñu ngi yor seen carte d'identité daal kese mais dañu bëgg chaque trois mois nga dem dagg d'office di carte coono bu metti boo xam si nii mooy loolu te seize jours bi ñu wax amut bureau buñ ko def defuñu ci benn bureau boo xam si nii ni dem nañ ambassade kaas nañ ko ay yoonu yoon ñoom it benn yoon lañ ci wax ñaari yoon ba tey kenn dégg nañ ramas dañ lay dañ fi ramas nit nga woo ambassadeur bi mu ne la tëdd naa walla nga benn Sénégalais am fi problème nga woo ambassadeur mën la tëdd naa vingt deux heures nga ne tëdd naa te ñu teg la fi ngir Sénégalais yi waaw ñaaw na lool ñaaw na trop def nañ fi ñaata dox ñaxtu mënut a fexe ba ant ñu lijjanti ñu ñun Sénégalais ñu nekk si jàmm waaw. d'accord dégg nañu bu baax li nga léegi doon daal maanaam ñi nga xam te ne ñoom ñoo leen teewal foofu muy ambassadeur bu Sénégal yi. yéen a ngi koy contacter mais maanaam li war daal defu ko ci ba léegi ok léegi ak condition yu métti yi ngeen dundee foofu noonu coono boobu ñëpp ñu leen di teg lu moo tax yéen ngeen préféré toog foofu noonu la moo tax yéen ñibbisu leen ngeen jéem liggéey Sénégal lan moo tax ngeen bëgg a toog foofu di continuer di dund dund bu métti boobu. du loolu sax dañoo bañ a ñibbi Sénégal wala dara du loolu mais xam nga fi nga yor sa place di liggéey. Sénégal mënoo tëb tëb rek dikk tey rek ne am nga place fii danga nga liggéey fii te xam nga Sénégal moom waaw <clears throat> ñun ñëpp mën nañ fee liggéey si mais il faut que day doon kon day doon condition ndax tey il faut que kon état jël responsabilité ñun ñëpp mën na ñëw ku nekk mën naa ñibbi si ñëw dëkk foofu xam nga fi nga nekk ba yore fi ay eh, place waaw déglu xëy xëy rek tëj na place dem sa yoon dem Sénégal te xam nga Sénégal ni mu demee noonu. waaw loolu dong la te njaboota ñu sonal te di yor suñu famille loolu dong nga tax te est-ce que mën nga nekk Sénégal li ngay am fii nga koy gañe foofu ba tey di yor sa famille loolu impossible mënta ne waaw loolu dong ñu téye mais du dara buñ leeroon na buñ dikkee Sénégal googu danañ am lu ñu bëgg waaw moo ñu gënal fuuf ñun ñu liggéey ñu gënal moo ñu gënal mais nag xëy na yàlla lii la dogal waaw. ñu nekk fii suñu teranga fii la nekk xanaa waaw mais négociation day am état tey waroon na di mën a accord d' accord dégg naa la bu baax maanaam suma déggee sa wax kon li ngeen di man di gagné foofu noonu bu ngeen dikkoon Sénégal mu leen ko fa am ah pourtant Sénégal am na ñu fi nekk ñoo xamante ni sii day wax dëgg ñi ngi fiy liggéey di ci yor seen waa kër yor ci seen doom et mais buñ ñëwaatee tamit ci li nga wax nga ni liggéey ngeen fa ba am fa place mun leen ko xëy ba ko fa ñëw d'accord léegi yéen bi ngeen commencé liggéey ba léegi nii condition yi ma tegal nii yi ma expliqué nii est-ce que loolu ngeen doon dund boobu ba léegi wala condition yi nii ci ban jamono la tàmbali. waaw kon lii moom yàgg na fi moom bañ koy dund dañ koy dund waaw dañ koy dund dañ koy dund bu metti trop mais xam nga góor yàlla lañ ay góor yàlla lañ. waaw te du benn yoon bii rek lañ lii bii nag moom tey dafa jéggi day ñu xam ne nag bu ci etaa bi waxut dana jur leneen ndax tey ñaata senegal lañ rey ci tefesu Mauritanie gii état duñ dégg sax wax ko duñ dégg mu lijjanti dara wóor na yàlla laa lay moo li nekk fii ñi nga xam ay sénégalais lañ ñoom ñoo tax fii tey Mauritanie gii di dem ci seen lii di dem ndax moo li sénégalais yi tax dañuy dem jotee ñoom sax dañuy garde yi dañuy jekki-jekki jam ci kenn te tout le temps lay demee mais doo dégg état ŋaa ci doo dégg état wax ci ñun ñii commercant yi ñun ñi dañuy liggéey heure bi suñ place lañ ñuy fekk heure yi dikk fekk ñu ci biir place yi da ngeen joxe trente mille wala ñu yóbbu leen ngeen fanaane fële trente mille liggéey cinquante mille CFA te boo jaayee ba ngoon jot tey yow yor sa vingt cinq mille jël beneen cinq mille teg ci fayee ko léegi loolu yow imagine loolu loolu xam nga ni métti na te état boobu ba tey kenn dégg mu wax waaw dëgg la Sénégal mën faa gagné mais ku nekk ak fa yàlla tudd sa wërsëg tey mën nga ñun nañu jóge fii dem Sénégal ñàkk suñu bien yëpp waaw mais Sénégal ñooy liggéey ña nga ndax man mii di wax ak yow sama rakk ma nga fa yor place waaw ma ngay liggéey foofu waaw mais tey xam nga ni mënoo tëb tëb rek ne damay dem Sénégal dama fay tekkee force ku nekk ak fa yàlla bind soo jëb ala kulli al fa ngay jotee mais tey xam na ni yàlla xëy na dafa gën ci ñun mais da yoon suñuy njiit ak suñu kilifa taxaw wax ci ñun joytu nañ ko fu nekk xeex nañ ko fu nekk ba mars nañ fii def nañ lu ne mais ba tey dégguñu état wax waaw ñun loolu daf ñu metti billaay wallaay d'accord Cheikh bi dégg nañ bu baax a baax li nga wax di la jaajëfal rek ci leeral li am solo yi nga def donc chers internautes gannaaw ba ngeen dégloo waxtaan ba pare ñi ngi ñaan képp ku ci am xalaat nga defal ñu ko ci commentaire yi wala nga envoyé ñu ko par message ci sunu WhatsApp di dellu encore une fois di tuub di jégalu ñëpp lu fi dëng rek ngeen xam ne ci man mii la lu fi jub nag ngeen xam ne ndimbalu borom bi la di leen siyaar di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di leen jox digg daje ci beneen vidéo incha allah